mon frère. tey sa waay. léegi naa la de. cool au calme takk di ngeen. ça va bien. yaa ngi gën a xam. may paa sa paa bi laa fekk gaañ ma takkal lu métti ne gaañ. waaye paa bi moom xam nga moom mooy loolu ko wax paa dama doon dal xam nga rek. si da ngaa sonn da ngaa sonn da ngaa sonn da ngaa sonn. oui mais naka la. waaw cool au calme li dig ma xaalis li dig ma xaalis jóg moom. kan ci kii sa waa ji. moom mi. mais eh, kii du dara waay. non wuy ma père wuy ma kii bu la diggee xaalis na la ko jox xanaa xamoo kii waxu mooy doomu jagooru. wax na la ko ba xam nga compte bancaire mi amu ko xam nga tamit. non cooju wuy ma xoolal père su ma ñëwee la compte. Hmm. su ko defee a xam de alalam ji bàyyam yor xanaa lekku ci piire mooy liir yooyu ñu jéppi ci liir yooyu ñu jip la ay ñoom ñaara yam de ay dëkkatu dil lañ sama xel tey na ci ñoom de ay di waa ji bu dil sama ak xottalee kitaabu naan day de ay daa gi na soo ay fee ko nii ni noo def ak tàngoor wi oh. waaw ak koor gi climat bi waa naka sax waaye dama commencé résenir rek ah yaa ngi xam ah gis nga <laughs> ah. sama mag mi ngi lay toppatoo de. bu baax nag maa ngi maa ngi daal. Ah, ah, waaw daa du moom mais lépp jàmm. sant waay ah, kaay waay kaay sarak ñëw na sarak ñaw na. soyez bienvenue dalal ko. Eh, dalal ko dalal ko dalal ko dalal ko. waaye ini ñu kau def nii yaa kau jonga ma ay kau banget nih. xale kau ngi na de ah masha Allah masha kau ay fat ko kau ko talal ko kau rakkam ji mool kau léegi ci rakkam kau mi ngi sama kau de waaye bu kau woon nag rakk kau naa donn wala kau man loolu tamit kau ma laaj ko kau leer xam naa ne sama jabar léegi mu gaañoo bu gaañoo après mu jël rakk ji sama xel fan yi moom rakk jaan ci non mi ngi ci. waa Diagne noppaliku nga ni mu tàngi. fii moom ndar moo ko daal. waa naka ndar nag. peex neex. kom nag ma bàyyi woon nag bidaa maa ngi leen namm nag. non nga nag. waa ani sama yaay nag ba moom ci jàmm. ba léegi ça va te yaram bi léegi bàyyi na. waaye nu mujj sax yow sa formation bi nga doon def. pare naa pare nga léegi. pare naa instant yi daal dama déposé woon kii mm, mm-hmm. stage. Mm. di xaar koo gi jàll après léegi xam naa peut-être ñu ma incha allah affaire yi moom da ngay da ngay làmbatu rek. da nga li gën da ngay jàng ba sonn ah. se doo gis sax def sa formation doo dégg kenn ku la woo loolu tam xam nga ni neexul tamit mais nag yàlla baax na. incha allah lépp du ñaari rek gis nga sama kër gi nag moom ni mu wéete fii daa wéet de sama kër gii. wéet nga nag franchement da nga wéet. man ak bàyyi kese ñoo fi nekk ak benn locataire kese. da nga am locataire. waaw. Ah, ne kooku wéttaliwul kenn ci néegam dong lay. baax day génn wala mu tëju rek. moom <laughs> sax neexoowuñu nag dañuy xuloo rek. ni sama nijaay xam nga ko ni muy def. Ah, di dunguru ah, di ko. salaamaaleykum. du changé. ah sama soxna su ñaawul jaam moom ci ne. na mu am jàmm ah sama nen. sama rakk la. Ah, la jóge waa. waaw dañoo wooree si. dëgg la dëgg la. maa yoroon ci jàmm rek. Aïda ah tur bi daa neex Faal Faal Faal. Faal Faal. wut si. wut ma añ nag wut si sama soxna bu ñaawul bii daal laa doon laa doon kii si wallaay. Eh, du saafe dara. daa mel ni amul dara de. amul dara moom koy wutalal ma ko góor gu baax bala moo ñibbi. ah góor gu baax kay du ma mooy yàlla bu ma mucc ci kii yàlla bu ma mucc ci moom ça va alhamdulilah mais lépp jàmm rek. Mhm. ah non kii dina am dina am bu baax dina am bu baax incha allah euh, mais gis nga kii soxna Xadi yow soxla woon naa la sax. déedéet nan toog nii nan toog nii ma wax yow umpu la ni bàyyi bu defee dara mel na ni maa ko def bàyyi daal damaa dajeeg moo weeru koor wi mu yor suukar ak warga mel ni xale bu ndaw ci mbedd yi damaa rus sax ma expliqué ak moom nag mu ni ma mu ni ma mu ni ci mbedd mi lu dul saaga def na ma ko bu ma la seetul woon dama koy ñuus ba mu dul non ankay ankay ah, si si ah léegi nag ba na man bëgguma fi woon a ñëw mais yow ya tax mënuma la bax sama jeeg bu ñaawul bi sama nen yaa ngi dégg li wax voilà xam na ne nag li wax ni euh, xaw na tousé tuuse nijaay dara tousé wu ma ci naqari na ma sax nak sama nijaay bo sa saagaa moom xam nga mu xawa metti deug la deug la waaye lo wax ci mom rek amna lu ci def non dal la demé moom nga ma fekk man ak ayda ni makoy wax ayda ben waay daal la luyé ci kër gi diko dunguru melni serigne sëriñ ak taalibeem di ko dawal safaak marwa di ko yónni fu ne la ko yónni war ngaa suukar boobu noonu man ak moom dañ cee geer ba. dafa location sax ah, loolu tax na laal nga laal point bu am solo waajoo ji soxla waale naa ko ndax dégg naa mooy def teraanga yi tar bi wu ma ko de sama liggéey laa yor mu yor liggéeyam ñu partagé ànd liggéey loolu tax ma soxla ko mm. dégg nga li ma la wax bu baax loolu donc tax ma soxla waaj de anam waaji mu fi nii sax. day nelaw xam naa sànq ah kii soxna kii. Kira xoolal ma ko góor bu baax. koy jël. léegi eh, eh, eh, sa loxo bi xool Fall gën a gër yow looy def nii. gën a gër ngay mel ni uure gën a fi. Ah. gën a fi demal bu fi tàggoo. boo la gisati ci kër gi de. maa ngi dem maa ngi ma tay la ci gàndoog lam laa la. waaw kan waaye yow mënoo bàyyi bu ñu ngeen di boo génnee. mënoo bàyyi lu ngeen di boo génnee. xaaral ma. ma génn ma. ak ah, bu doole rek ne ko boo génnee ma wax la boo ba loolu kañ la fi jeex boo génne ah, ma noq la. ah waaw nag amee rek boo génne dama noq la loolu kañ la jeex ci biir kër gi. Eh, soo nekku ci gis nga moytul ma kii xam naa ko bëgg na jigéen ku xees day bañ a gis te yow macha allah jugal saw bu ñëwee freiné ko muy tapé ak kii daa ëppal jël say décision ci moom man Fall bi dafa yow. yow kañ nga commencé di dàq que yɔrɔ ma sa sɔrɔ meu. yɔ. bɛɛ y'o gɔnsa yɔ